teɗigonga taway sidan wontalo dan dadan mallano bari billahi wallahi adin dannalago kano ñine toñe mantaw hako boyne mantaw ñin meje mboga contano contano tubaɓol konña gentleman kambano manɗigmo ɓinse toppotono dira bendi sokono a go ha ha ha ha ha ha no de wai na na na ngata wai bulo mutan sama na na na ni tenden mando je sebi ko na na na ngata Okay, that was a very, very beautiful video by Manding Mori. Nankambawai. Nankambawai. ablai Nankambawai. No, that guy is going to come take you. When no, I want you to come take me. Well, Fatu, uh, just to remind you, you're watching What's Up, and unfortunately we don't have so much time, but just as we said, uh, today is the first day we, starting, uh, we started the show, and it's mm -hmm. going to be coming every, every Saturday, Saturday, same time, time, from 2 to 3. And we have this special segment that is created called, you know, uh, more, more, like the birthday greetings, like if you have your birthdays, you want to advertise, especially kids, mm -hmm. bring pictures, you know, with very nice music. You can contact GRTS Marketing, mm -hmm. and we would solely have uh, your birthday inserted in this program. Mm So you can always uh, get in touch with us, and then uh, you would, we would make your uh, birthday a very, very blissful one. In Wolof? ok mbokk yi waaw ah, tey nag comme ni ñu ko waxee rek programme bi tey moo nekk njëlbeeni ah, fan bi ñu commencé ko. Mhm. waaye nag am na benn segment ah, bu ñu tuddee birthday greetings maanaam soo amee doom wala nit ku nga xam ne rek dafa bëgg a celebrate birthday yam bi. Mhm. mën nga ñu mën ngaa contact GRTS marketing te neen wane sa nataal with very nice words ak music play ko si biir programme bi nit ñëpp mën a xam ne nag. tey yaa ngi màggal sa ati juddu so képp ki nga xam ne bëgg ngaa def lii rek mën ngaa contact GRTS marketing te ñoom la wax yëpp naka la faa demee. <laughs> even though my English my wolof emite kati Abdoulaye Badji. yo emite kati Fatou. <laughs> mbadi ngo uh, min tutañe watuto pour ñim programme o ban aman siya kotenge bari jandi mbitala doron ka fare bila ñim programme o stata bila dal lum foloti bar uh, ah, me burna nan janko den next week ñi wato wala the same time GRTS jang bar ka faale do programme o to be segment do introduce la je nalan ko adingole ah, badde soto wala tan fongole badde soto ali na fe nan jang ngal na talol bondi tele to nga musique di ma ple nga wor sol sa faale je ni yalan ko naale je la bar nal lafta wol drong ko wato bantale nga understand le bari mbebe tentu la um, sira director min kana directeur um, siri fo be tentulam be jare tolle mako no je fatul fana nje ala ni nata ni ma bal jalla television oto bari mbal lahi la dron ko tan ni la inshallah abla baje okay thank you very much fatu just as you said uh, this way we're going to draw the curtains for this edition of whatsapp gambia until we come your way next week saturday special thanks going out uh, to show and use who the cameraman mm -hmm. giving mm-hmm. us you know making us look very very beautiful on tv thank you very much and, and see you next week. The very Peace best out. of our programs. Bye <laughs> bye. ngalaaw kottu ko xale bi songu ko yéey bul ko yërëm songu ko kottu ko ni non non su la dalee doo gis lu dul moom waaye man su dalee damay feebar ci mbëggeel léeg-léeg dang ci jooy léeg-léeg nga ci reetaan gisuma ko gisul ma suñu xol yaa ngi laaj mbëggeeloo Why did she keep me waiting for so long? Papa Juve, tell me, tell me why. avion sax li muy cher ma jëndal la ko yow yaa ko moom dëgg-dëgg daalo yi Alioune Badara dikkalee fee daal neex na ma my love kaay ndeyam sungum daaneel ma bul ma yërëm Ah. ba fu mu la nu xawaay baana ni xadi bari aw yaa bëgg sa waay aliw fu mu la toolu gis nu xawaay assalamu alaikum baneŋolu baneŋ jubel lalu ngal kon ton kale bisimila e ko teke na eh, kacha programme o to mun ka télévision television to loko loko nyin to mo pedum fana al malen bakari fate be nga fay soto jang masta ousmane fay e eh, eh, deputy headmaster sukuta lobe school e mu yalon ka mankelu ndandi jang wani waden ka soto jang bi ale yulto bula nga telephone soto jang ala usman woto ni mu badono nyokonto ba fa makata be mo be banko mo be konton no mbe duwala mbota salo min kono <laughs> sunkaro alma alayam ma be a jama jama la amin allah ah, ya rabbi president o konton na nala dimbal <laughs> ah, nala dimbal nala mol be tu <laughs> ko banko mol be konton ka duwa en simaya ba anin jata kende ha mba jayla mba tentula bake ha dunya alay man sol dale ha bare alay min dila ta ay min dila siwo muta hmm? ha ta fala balora warola de asa fa hamola a safaa as a